koñ yi sama koñ la daanaka man man dëkkuma fi maa ngi dëkk fële euh, Brest euh, Arafat mais sama koñ yi sama mag moo fi dëkk si ginnaaw bu ma kër gi bu bu ma demee sama mag ñëw si kër gi laa jàkkaarloo te kër gi dafa yàgg màpp du tey man maa sama mag naa ko yow ku jëfin kër gi kër gi bu yàgg lu mu yàgg dina mos a daanu man waa Bignona la 1960 laa judd nit bu doone nit nga xam ne kër gi ñëpp a ko bokk boo nit doomi aana bu gisee loo xam te ne ñaaw na ñëpp a ko bokk te doom bu ndaw boo ko juree tey kala jur ko yow ci nga bokk lu mel nii ñëpp ko bokk amul jàmm nit di koy laaj laaj naan lii ak lii ak lii ñëpp ñoo war a teg loxo wax lu ñu war a wax suñu condoléance wax lu ñu war a wax suñu lépp kër gi fi nii dafa ñaaw. bi nga yëgee nii am na yow num la def. daf ma metti surtout liir bu ndaw bu dee bu bu bu nekk fa ba ñu génn ko ngir ya parce que liir bi deewut euh, euh, deewut yàllaa ko sauvé nar na ànd ak yaayam dem. waa yàlla soobi liir bi parce que loolu moom ma métti métti na ma kir yàlla te du xale yi nekk fa ñu fi gaañu noonu am na ñu doon samay mag am na ñu doon samay baay am na ñu doon sama lépp mais nee naa la Ziga Dakar lépp luy def dañ ñu war a di seede lu baax la xam man du jeune pas bi te man juddoo ma fi man waa sor la fii Dakar gi dem fay liggéey di dem mais boo gisee lu mel nii toujours muy noonu. man toujours nee naa leen juif ma ne ko bâtiment Ndakaaru Njaay baaxul bu leen di jël ay bâtiment di koy def étage Bignona amul bi Bignona suuf kër suuf la ñu am te tere ñu Bignona sa doo fa def étage dañ ko tere lu tax duñ ko def comme ñële fële Bignona Bignona amuloo amulu njax-njax amuloo kii mais fii étage tant que nit deful étage doo am jàmm mais kër kër dangaa war a def mbatt nga def sa kër ba mu rafet nga xam nga të tëdd mu door sa jàmm mais lii ñaaw na. mais ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàññeeku ci ñëw am na ci ko xamante ni miin nga ko wala ko ci xam. ñooñu miin ma leen mais dama ba ma ñëwee jógee fal si suba ba may dem liggéey ji sama xol métti na ba torop 3 heures du matin la ñu wax boobu man fekk naa maa ngi nelaw man sa bu may kii damay wàcc rek liggéey du ma génn si biti laa gis lii. lii métti na ma bu fekkee ne méttul kenn rek métti na ma kër laa bugg mais ku fa ak lu ñu wax lu ñu wax de ñu ne dañu def ko kooku ba ko dafa demoon ni kii huissier ba mu jëlee huissier. mu nekk bu ma toog noonu moom lool mais man dama koy blâmer ci loo xamante ni sérieusement am am moomeel du ma nit yoon du ma nit mais sérieusement ku man bu doon man dama ni génn leen damay tabax sama kër bu doon man. bu ñu génnoon ma woo yoon ñu génne ngeen man dama ko taxaw sama kër daal du daal benn doom ko am loolu moo nekk sama xalaat xaw ma nag moom xalaatam xaw ma nu mu xeexoo mais ñun daal yi mën na ma ànd feccoo ci la lii daal. lan nga xam ne bilan bi ñaata la ñaata la mën a d'accord mais mais bëggoon naa xam ne jamono kër gi wax nga ko sànq est-ce que itam depuis loolu population maanaam ñu ngi dégg ngeen seen i matuwaay gën a wàllu yàlla waa parce ñoo xam ne loolu parce am dëkkandoo boo xam ne nee na ma kër gi daanu la jëm témoignage kooku ñëwoon avant muy daan boo xool da nga xam ne kër gi daanu la jëm parce que ni ko liggéeyee a ah, loolu suñu Sénégal bi suñu Sénégal war nañ ko defar ñu këri këri ni muy daanoo parce que lii dafa war a mujj tey ñu war ñu dëgg mais daal suñu suñu réew ci boppam war nañ xeex loo xamante ni ñun ñooy ñun baadoole ñooy dee te maintenant bi war a am ci réew dañu war a def kër yu baaxul ñu xam ko mais duñu bàyyi ba mu dee ñu soog a réagir nii ñun ñëpp xam nañ loolu si réew mi te loolu war nañ ci bàyyi xel kër yi yàqu ñun ñëpp kenn ku ne mën na la wax benn koñ fii xaar xam ne boo duggoon tey dama naan c'est pas vrai daanu rek ñun ñun ñun ñun ñu taxaw bi yëpp ñu ngi koy seetaan du man rek du yow rek ñun ñëpp ñu ngi seetaan loolu mais naka la ñuy réagir pour ñu defar ko wala génn nii léegi ñu teg suñu ngeen dégg beneen kër de voir le maire après. oui lépp rek wasalaam. ne mënu ma la wax exact ñaata mort la man dama ne mënu weesu quatre bu nekkee trois à part ñii mënu weesu quatre mort mënu weesu quatre mort bu nekkul trois di quatre ñaar yooyu benn la mënoo jàng. parce que si man edd waaw sem ak sem 2 yëpp fii laa jot ne nekkoon ci bâtiment waaw jot ci xam euh, ci ñu ma jot a xam comme ay sénégalais. Mhm. ñi nga xamante ne xam naa tey boog seen kanam Aliou la ak Ahmed. Mhm. waaw Aliou ak Ahmed ak nekk Satou Badiane. d'accord fan ngeen toll ci recherche bi ñu ngi lay gis ni yaa ngi jaabante suba bi ba waaw ñoo jaabante gars ngi gis koor yi naaka naan mhm. waaw juróom benn koor lañ fi génnee six koor mhm. ci parmi six koor yi dafa am cinq koor yi nga xam leen ci kër gi lañ def kenn ki nag dañu la bu ñëw seet si mhm. doon wax sànq ni day am ay gan yi nga xam ne dinañ ñëw waaw loolu moo tax nag xamuñu kii kan la dañuy bàyyi police def liggéeyam donc différentes nationalités ñoom ñoo fi ñëw di seetaan non xam nga tey kër gi te comme tey boobu ni ma la ko waxee rek différence nationalité mën nañu seen am masse waaw sama mbokk ivoirien yi fi nekk sama mbokk congolais yi fi nekk seen koor xamee nañ waaw te beneen femme bi nañu ñëpp ci kër yi ñun xam nañu ko waaw te mënoo ko identifier anam bu ñu ko génnee moo tax dañu bëgg bàyyi waaw bu ñu demee hôpital ñu gën jëkk yi dayam ñu ko identifier la deuxième troisième côté bi am appartement côté itam daa am appartement premier deuxième bi am appartement premier deuxième am na à peu près xaymal ay vingt cinq personnes la location la mënoo xam kan ak kër gi doon am yaakaar ngeen am ah, ci liñ jot a dégg dafa newoon uti ci leen appartement ba leen dëkk sama kër dama koy daaneel jot parce que kër gi mu mel nii ma fi téye yan toog bu coow amee maa koy raw borom kër gi ci lu ma jot a dégg ci lu ma wax ñu demaat ba ci digg bi dëkkandóoro ñu nag amuñu fu ñu dëkk nañ leen may tuuti borom kër gi ci la waxtaan ak benn ma maçon bi bu ñëwee xool xam naa seen waxtaan maçon bi moo jël initiative pour liggéey ak kër waaw ñu ngi lay ñu ci liggéey Euh, li nga xam ne mooy yeneen information yi mën nañ jàpp ni dinañ ko am ci euh, li nga xam ne ñooy sapeur pompier donc ñu ngi lay jaajëfal euh, maa ngi tudd Lamine sant maa ngi dëkk ci xaar yàlla fii ci koñ bi juddoo fi yaroo fi defee fi sama enfance defee fi sama lépp jàngee fi CM1 ba CM2 primaire jàng waaw jàngee naa fi lépp ci koñ bi dëkk fii tamit. d'accord est-ce que mën nga revenir un petit peu ci li nga xam ne moom moo tax fii tey. waaw dañu toog démb di seetaan match xam nga booy moom la ñu seetaanee fii kër gi match. Mm-hmm. ambiance bi da leen di neex ñu toog ak ñu toog ak gars yi daal. Mm-hmm. étranger di waxtaan ak moom di jafe-jafe. bu ñu seetaanee match Sénégal ñu gagné Sénégal ñu toog bay 11h30 minutes yooyu ci la affaire bi daal waa koñ bi ñëpp daw. Mm-hmm. ñëw nag jàpp ci taxawaay taxawaay bu rafet booy waa koñ bi. dëgg yàlla booy waa koñ bi ñoo def liggéey bi yëpp démb ci guddi sapeur pompier ñëw yokk leen doole waaw après nag ñu mujjee wàcc ñu bàyyi waa Sarko def seen liggéey ñun nag wax dëgg yàlla ñu des fi fanaan fi ba tey di def rek yàlla da parce que yëf yi daa métti waaw te ñëpp xam nañ dëppandoo daf foofu waaw looloo ñu fi bàyyi d'accord immeuble bi yàqu la woon wala lan immeuble dafa yàqu woon borom kër gi di ko defaraat mais borom kër gi ne wax na leen ñu génn uti ci diggante bi na xaw ma après lan moo xew ba borom kër gi jël initiative ne day defaraat kër waaw d'accord euh, jot ngeen a alerté avant loolu wala non loolu moom man wax dëgg yàlla moom mais bu ngeen loo xam xam ngeen ne carrément lii ëllëg bu daanoo mën na am géej ci fan. booy alerté tey exemple da ngay alerté ko nga xamante ne boo ko bu ñëwee. da lay defal la nga bëgg. gox bi ñu nekk grand dafa rëy. te mairie bi donte sax ko gars yi ngi def seen liggéey mais xëy na peut être éléments yi bëriwul. waaw malgré que nag mairie bi moom ñoo ngi def seen liggéey. ñu waaw booy wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ fii la ñu fanaan comme ñun. waaw booy yee ngi def seen liggéey bu baax. d' accord euh, d' après bilan bi nga xam ne génn na ndax ay matériel wala sax matériel génn na fi xaalis génn na fi bagage bi yàqu bëri na boo ko doon xaymal tey day ëpp cinq cinq millions ba sept millions waaw bagage ci kër gi day ëpp sept millions pour kaw waaw nit ñi aussi tamit am na fi ay blessé démb ci guddi euh, heure bu muy am génne nañu ay évacué dañoo blessé ba ci sax liir génne nañ ko waaw malheureusement dara dara dalu ko. dara dalu ko amagul benn mort. am na en am na mort. Mm-hmm. waaw am na booy six mort. six mort waaw am na six mort juróom-benn mort moo fi nekk. Mm-hmm. parmi ci six yi cinq yi lañ identifié ci kër gi lañ dëkk mais kenn ki mënuñu xam fu mu dëkk. waaw xëy na peut-être aussi daf fi amoon waaw boobu fu mu fi ñëwoon seet si. Mm-hmm. borom kër gi fii la dëkk wala. borom kër gi dëkk fi Almadies la dëkk. Almadies la dëkk waaw dëkkoon na fi à l'époque yàgg na mënatu ko dem Almadies yàgg waaw fi yàgg na waaw te boo xoolee ba ci mooy moment bu muy tuub kër gi la ko la meluloon waaw moment bi. ba situation bi amee dégg ngeen na fi. bu situation bi amee ñëw na fi démb yëpp fii la fanaan préfet bi fii la fanaan commissaire bi fii la fanaan waa sapeur pompier fii la fanaan waaw ba sànq ni may wax ak yow nii fii la toogoon di jooy moom it mm. waaw gisatuma ko nii fii la toogoon di jooy. d' accord alors ñu ngi leen di masawu bu baax yéen ñu dund lii su pense que itam am na benn message bu ngeen bëgg lancer. waaw ah message bu ñuy lancer ñu gën a bàyyi xel rek waaw ñu gën a bàyyi xel rek ci yu ñu dëkk. ñu gën a bàyyi xel aussi xam ne aussi Sénégal tamit dafa xat. waaw Sénégal dafa xat xat bi nga xamante ne fuñ la fuñ la kii rek ubbi rek waaw koy mooy doo gis dara lu dul dem toog fa fanaan te oto yow doo sa sa waaw mairie bi tamit ñoo ngi liggéey. Mm-hmm. franchement parler dañuy wootewaat appel ci mairie grand bi monsieur monsieur Liba ma jóg jóg. mu jàppale ñu ci lii mu jàppale ñu diversifier kër yi parce que kër yu bëri fii wallaahi asim boo ko xoolee da ko war a toj xar yàlla kër yu bari da ko war a toj xar yàlla kër kër yu bëri waaw maa ngi leen doon signalé démb rek ci benn kër gu nekk côté jumaa ja kër googu boo demee ba foofu boo ko vidéoyee wallaahi asim da ngay daw ndax kër gi dafa dem ba dëgg waaw te alkaati yi ñu xam nañ ay nit ñu ngi fa te ay nit ñoo ngi fa mhm. di dëkk waaw dem nañ fa yóbbu fa alkaati yi yi dem borom kër gi te xaw ma lan ak lan la leen wax loolu xaw ma d' accord d' accord or fi mbir yi amee ñi ñu naan xaar yàlla ñi naan Grand Yoff ñu naan Liberté 6. non fi mooy xaar yàlla fi mooy xaar yàlla entre xaar yàlla moo ngi nii à part tali bi nii yëpp xaar yàlla. Mhm. boo jógee tali bi nii fii mooy Liberté mais fii mooy digg xaar yàlla. waaw fii mooy xaar yàlla. en face wàll fii mooy waaw en face wàll fa ay see ay see ay see yoon bi da xaar yàlla. Ah, mhm. d' accord merci beaucoup léegi bi ñaata mois la am léegi mu nekk 6. 6 mois 7 mois si je me trompe pas loolu la amoon. d' accord merci beaucoup. ok jaajëf merci ok merci beaucoup.